cofeel gi yàlla ak yonent bi ak Serigne tubaa moo ko fondement xéewal gun ci fekk nag cofeel ga moo nu ko may ndax man ba ma ko gisee ne ko jàkk xam ne kii sëñ Touba rek la bëgg ñi àndal sëñ tubaa rekk la ñu bëgg ma gëstu ñu ne ñu wax ne Cheikh Abdoulaye da ne képp ku fi toogal sëñ Touba na leen di jox ndigal li tax nag ma di leen ko wax moo di daara ji taalibe seen a ngi ci taalibeb seen diwa ngi ci taalibeb seen diwa ngi ci su ngeen xàjj koo nag dem ne dañoo siyaare seen diw taalibe moom it ne kon dees na siyaare ji sama sëriñ bu boobaa ngeen indi lëfin waaye ki fi toogal sëñ Tuubaa nag moom taalibe yooyu bokk ci daara ji ñëpp ko bokk ak ku mën a doon ñëpp a bokk ki fi toogal sëñ Tuubaa ndax moo fi toogal sëñ Tuubaa ne leen di jox ndigal daal ne leen nag bu boobaa nag bu leen maslaa ba ñu maasale leen bu boobaa bu leen maslaa ba ñu maasale leen fulla mooy képp boo nekkee ci lu baax bu la ci kenn dindi bu la wóoree ne lii lu baax la bu la ci kenn dindi cofeel googu nag ma di ko daw ci ñoom di ko daw ci ñoom ca yàlla yoon te sëriñ tubaa tax ba dem ba sëñ aatu bu ma ko nuyoo mu ne ma gay xàmmi ma lool ndax euh, sëñ tubaa nee na euh, taa boo xamee ku baax rek dolli ko nga fu la ku baax xamee it dolliku nga loolu moo waral ma tax ak ñoom ci cofeel googu ba yëkkati sama ñaari doom murtala ak kooku jox ko ko ne ko siñaatu mu ne ama ah, ne ko ah man de dama am cofeel yéen ci daara ji bëgg leen jox sama ñaari tuut bëgg laa jox sama ñaari tuut tànk yii nga yaral ma leen mu ne ma bu ma ci noppee daa ñu jàng daañu mécc génne waale métier man la ca yor bu ñu rombe xaalis bu rot yoon wi duñ ko for ma ne ko loolu kay sëñ bi dooy na leen mu ne ma koñ ba ngay dëkkal de bu soobee yàlla bu ñu see kenn du la fa ba ma ne ko mbàkke mu ne ma li bëgg sa doom yi dinaa ko ci defal loolu moo waral nag ma ne loolu nag moo waral ma ne sëñ aatu mënuma koo fay ndax yoruma xaalis bu ma koy jox mënuma koo fay xam lu ma koy fayee tuddee ko doom moo waral sama doom bii di aatu sëñ aatu moom tuddee ko ko tuddee naa ko ko ba mu dajeeg sëñ Fallou bu su cumbaleen mi ko tuddoon kër sëñ Saliou moo ko ko wax mu doog koo xam waaye manoon na fee nekk bay dem yoonam ca du ko xam ndax jëm yàlla yonent bi ak sëñ Tuubaa dong nga tax ma tuddee ko ko ba ma ko ko waxee mu ne ma yow day wax dëgg yàlla bari barika àlla yow daal dama lay bàyyi sëñ Tuubaa mu fay la rek ndax man daa daara sax musuma nangu nu ma kenn ku ma tuddee doom yaa ma fi jëkk tuddee doom nii ci gox bi bépp yaama ma fi jëkk a tuddee waaw te loolu lépp ak mbaaxam ak bëggum sëñ Tuubaa te mbooloo mii mu àndal yàlla na leen yàlla dolli ngërëm yàlla na leen yàlla yéege ci kaw ngeen bari la xaalis lool lool lool lool ba yéem ak képp ku leen sopp ndax yéen liggéey Sëñ Tuubaa rek ngeen di def ca mànkoo ngeen bennoo ngeen soppante ngeen am ngeen yaramu mu ka ca mag ba ca gën a tuuti is bu tarxee doxinu wenn la kenn ku ci am faiblesse amut Sëñ Tuubaa rek kon nag ñu ngi ñaanal it Sëñ Yuusu mii nga xam ne da doon loxo ndeyjooru sëñaatu Aatu ñëpp xam ko ci ak Ahmadou Samb ak gaa yi ci des yëpp mënuma leen a lim ndax ñoom ñëpp ñu ci bari xam naa leen daara sax jàpp naa ne sax ñi xam ñëpp ñu xawma leen ak di siyaare waa kuréel bi ñëpp di ñaanal sëñ Yuusu yan bi yàlla na woyof toy ci moom te dana woyof ndax sëñ Muntaxa lu mu xool ba teg ko ci sa loxo baarakallaahu jaxasoo naag daara ji ci jëwriñ la ci daara ji yàgg naa ñoom xam na doxin yëpp te daara ji moom kii ci jiitu ba ca ka ca topp ñëpp am Pastef ndax bu ñu amoon Pastef liggéey bi du yegg si fii ndax sañaatu loolu lay wax toujours day wax de bu ma kenn gërëm maa ngi yéene yem ci daara ji maa ngi yem ci daara ji ñoom ñëpp am pas-pas nee na ma kaawu militaire la na ku ci dugg boo ragalee da nga daw waaw loolu lu wér la kaawu militaire sëñ Tuubaa la waaw kon nag sëñ bi cofeel gi daal damaa gis lépp. le wala euh, tubaab yi wax aba sedd lépp di sëñ tubaa rek man sopp ma ku dul sëñ tubaa kenn mënumaa taxa may wax lu dul dëgg du ma penal kenn du ma waxal kenn lu dul dëgg lii ma ci wax lépp benn bu ci ne mën naa koo waat jëfi siñaatu boo xoolee teg ci sa loxo boo làmbee daj boo boo xoolee gis boo làmbee daj wóor na ña fa teew ñëpp waaw barakallah yal na ko yàlla tàbbal jannatu firdawsi bi xeyri saab xéewalee ñam dendal ñëpp yàlla nañ ci xéewlu ba saata am na ku ma téléphoné démb ku ñuy wax sëñ mbakki Jigal yàlla na yàlla guddal fan ci wéru ko nee na ma sëñaatu foofee mu ne ñamu dendal ñëpp moo leen jox añ ak reer jërëjëf ñu siyaare sëñ Fallou Bousso cumba leen ak Cheikh Abdou bu Bousso ak sëñ bu Bousso ñoom ñëpp dañ maa daal di woo ci saasi lu ma téeméeri nit woo nañ ma yoo xam di ma jaal ak ndokkeel ñooñu ñëpp maa ngi leen di doole njukkal Kébémer euh, Dakar Thiès